aywa 8h jot na ba segal fukki simili ak euh, juróom-ñett Souleymane ñu lay nuyu di la dalal ni ñu koy defee aljuma bu jot. soxna Fatou maa ngi lay euh, fay di la ziyaare ci ajuma bi. Mm. di nuyu El Hadj Malick euh, Chérif Marcel. Mm. suñu natango yi nekk ci technique bi ak suñu mbokk téléspectateurs yi. aywa Chérif ñu wax la ci tolluwaay benn ci bërëbu liggéeyukaay réew mi Marcel mu ngi ci doon def un jour un chiffre ñu naan une maison à scandale maintenant nag question bi ñuy peut indi ay leeral mooy juróomi junni euh, ci ay emploi di ay liggéeykat naka la ñuy def quand même ba sauver leen parce que la situation est très critique actuellement. waaw Souleymane parce que le 3 mai bi président di recevoir encore cahier de doléances yi ñëw na ci situation groupe La Poste jàpp ne jafe-jafe ya fa nekk déjà li ñu yoreel état bi rek milliards am na ñu fa nekk tamit muy 5000 emplois yoo xamante ni war na leen a fay kër gaa ngi ci guuta naka lañ def déjà ko bu dee mën naa nekk. bokk na ci euh, euh, saafara yi nga xam ne ñu ngi koy mettre en œuvre sous le contrôle du FMI alors y a une petite coïncidence mhm. euh, le cinq maanaam démb le mission de revue de l'instrument de coordination des politiques économiques moom mooy li ñu waxante ak mhm. FMI ci reforme yi ñu war a indi ci économie Sénégal bi yëpp pour que ñoom ñu continuer pas di ñu jàppale nañ ñu jàppale sax parce que dañu lebal ay DTS et cetera mm-hmm. mais di ñu layal ci yeneen partenaires yi pour ñu ñu lebal xaalis ñoom ñooy suñu garanti poste situation post ci biir situation société nationale yi ak euh, yeneen entité mm-hmm. publique yi dafa bokk ci préoccupation yi ëpp solo te ci solution bi nga xam ne déggoo nañ ko ak Sénégal moo ko moo ko moo ko décidé ah mais dañ ko déggoo dañoo jël engagement vis-à-vis du FMI et des autres bailleurs de fonds pour ñu restructurer poste réorganiser ko te bokk na ci solution yi li ñu def démb c'est l'objet de l'article du Soleil démb la ARTP bi nga xam ne moom mooy autorité de régulation des postes depuis 2006 dañu yokk prérogative boobu ci ARTP euh, donc poste Euh, seen comptabilité analytique comptabilité analytique lu ko moom mooy la comptabilité des coûts le calcul des coûts lan lan la ñu qu'est-ce que ça nous coûte de faire nos opérations suñu coût exploitation lan la démb la am atelier de mise en place parce que auparavant euh, def nañ euh, tous les préalables lancé appel d'offres am na ñu ñëw dimbali leen pour ñu def seen comptabilité installé nañ comptabilité bi validé ko et cetera loolu mooy premier safara il faut calculer les coûts pourquoi parce que poste puisque service public la mm-hmm. et ñoom rek ñoo am obligation service public universel postal mm-hmm. ñoom ñoo war a ne fu ne fu rentable fu rentable zone rurale ak yi service public boobu état bi daf la dafa am lu mu koy rémunérer pour état bi rémunérer poste il faut ñu xam poste ñaata lay dépenser au plan opérationnel pour euh, def service postale boobu on ne le savait pas ci coût nag coût personnel daf ci bokk les coûts d'exploitation salaire ak tout ce qui est lié aux rémunérations du personnel loolu daf ci am importance léegi nag comme ni ko DG bi waxee il y mois. bu nekkee nii yow say revenu yëpp boo ko boolee. Mhm. huit milliards la. nga xayma sa masse salariale mu dépassé quinze milliards di dem presque le double. Mhm. bu boobaa day am un problème. da ngay am déficit d' exploitation cest à yow bu ñu jëlee sa compte de résultat avant remboursement dette di ñëw mm-hmm. avant frais financier di ñëw avant euh, waxatuma la nag ay joxe ay fay ay yenn impôts yi impôts sur les sociétés et cetera mm-hmm. yooyu yëpp avant muy ñëw tu un déficit bu xootee noonu loolu état mënu ko compenser donc première solution comptabilité analytique bi mm-hmm. c'est-à-dire le la comptabilité des coûts calcul des coûts bu boobaa la ñu mën a wax nan la ñu rationaliser coûts yi parce que état bi nag boo ñëwee nga ne ko man 8 millions laay am. waaye 15 millions laa lay laaj wala 8 milliards lay am 15 millions 15 milliards mooy samay charge état bi du jël rek di la jox noonu. donc il faut ñu def les calculs avec toutes les conséquences bu ñu calculer coûts yi xam nañ ni li mooy coût réel yi li mooy coût fixe yi li mooy coût variable yi bu boobaa dinañ xam ne am na ay coûts yoo xam ne. c'est pas rationnel. Il faut optimiser. Payer des gens à ne rien faire, c'est pas des coûts normaux. Payer des gens yu def même liggéey bi ay doublons. c'est pas normal. donc restructuration mënul ñàkk ci lii. ah non la restructuration est en cours depuis 2016. loolu nit ñi waxuñu ko mais depuis 2016 la Poste est en restructuration maintenant. Mmh. dafa yéex. lan lan nga jàpp doguma la lan moo ko lan moo ko yeexal ci sa gis. mais je pense que euh, d'abord techniquement c'était difficile techniquement ma jox la benn misaal. 2020 boo demee ci rapport d'activité du Trésor am na benn chapitre boo xam ne c'est consacré au secteur parapublic dont la poste. année 2020 la ñu doog a régulariser la comptabilité 2017 et 2018 du groupe. poste finance année boobu xoolal deux ans de retard. Hmm. ci comptabilité bi ça veut dire que deux ans boobu il fallait résorber ça entre deux mille vingt et un hmm. veut dire déjà que on n'avait même pas de visibilité sur la comptabilité les comptes certifiés même les comptes yi nga xam ne def en on n'a pas pu les certifier on n'a pas pu les certifier donc problème technique am na volonté politique am na ah parce que c'est quand même une montagne. C'est un grand chantier. C'est un grand chantier. Et puis, il faut voir aussi les conséquences légales, sociales, mm etc. tey jii 5000 personnes yooyu bu nekkee ni post 1000 personnes rek la soxla wala 2000 personnes au maximum. parce que 3000 da nga leen war a dàq. waaw mais parce que parce que Souleymane di di dernière euh, année Malick Balma yu mujj yi ci leen gis quand même que le nombre de a doublé. parce que c'était euh, avant 2000 euh, et quelques. chérif 2700 la Poste a toujours été. Mhm. une société très politisée. plus aujourd'hui qu'avant. Mhm. mais loolu lu fa yàgg la. Mhm. recrutement yaa ma neex. clientélisme politique. politique népotisme. famille. famille dem indi doom kii dem indi nii et cetera dugalal ma kii dugalal ma kële. loolu. ala kulli xaal xamoon nañ ni fii lay mujjee sinon mhm. état bi moom mooy gàddu loo xam ne mëntu ko gàddu mhm. xool leen état bi cent quatre-vingt-neuf milliards à la poste trois cent et quelques milliards dans le secteur de l'énergie mhm. donc cent soixante-dix milliards à la Sénélec euh, subvention aliment alimentaire yi euh, renonciation à des taxes et impôts et cetera ci budget boo xam ne boo jëlee li nga xam ne dañu dem rek di ko jël ay taxes ay impôts 3100 milliards la même bu ñu nee budget 5000 milliards li nga xam ne daal koppar la boo xam ne lii lu wóor wóor la ça tourne autour de 3000 milliards boo ci génnee 1000 milliards de salaire nga génnee si 1000 milliards ay frais fonctionnement en général de l'État hmm. il ne reste plus grand chose donc li ñuy def nii dafa mënta woon a wéy donc li ñuy def comme solution donc une des solutions d'abord c'est ça am lisibilité ñu xam organisationnellement techniquement et cetera. légalement lan mooy situation bi état des lieux lañ nekk nii ba léegi. Mhm. mais comptabilité analytique bi calcul des coûts bi c'est très important parce que moom mooy déterminer la juste rémunération du service public postal par l'État c'est-à-dire 189 milliards yooyu day yokku wala day wàññeeku. il faut déjà ñu xam lan lay compenser lan lay rémunérer et à partir de ce moment-là la direction et les organes de contrôle les régulateurs bi mhm. conseil d'administration bi direction générale bi les comités qu'il y a au niveau de la direction mhm. ils seront obligés de prendre les mesures de rationalisation de la gestion c'est-à-dire excuse-moi Souleymane mhm. qui euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy organisation syndicale yi foofu qui réclament un audit Ah, non mais l'audit est en cours gis nga euh, euh, c'est c'est difficile profond. oui un audit profond ñoom lu ñuy wax c'est certainement auditer la gestion mm-hmm. mais il y un travail un peu plus systématique gis nga ça ne sert à rien mm-hmm. de faire sauter des fusibles bu nekkee fondamentalement mm -hmm. on n'a pas réglé le problème mm-hmm. d'abord la stratégie il y un, plan plan de, développement stratégique am na loolu état bi ci boppam am na ay banqaas yoo xam ne dañuy jàppale société nationale yi pour ñu développer seen ay plan de développement stratégique mm-hmm. loolu réflexion stratégique boobu au regard de l'évolution technologique euh, xarala yi bees yi opérateurs yi dañoo am concurrence il y a une quinzaine d'opérateurs mm-hmm. postaux yoo xam ne dañoo am licence d'exploitation mm-hmm. bien que post dafa am ay domaines réservés am na benn euh, jusqu'à un certain poids courrier normal bi. ñoom ñoo am exclusivité bi. déggoon ngeen xuloo yi fi amoon ak yenn opérateurs yi amuñu droit distribuer tel type de courrier. et cetera moom dafa am ay domaine am. mais audit bi ñuy wax boobu. c'est l'audit de la gestion de tel directeur général et cetera. mais l'audit réel bi ñuy war a def ñoom dañ ci bokk c'est-à-dire les pratiques qu'il y a euh, au niveau du personnel recrutement avancement et cetera au niveau de la gestion au niveau décentralisé je n'ai jamais vu une société où il y a autant de détournements. Mmh. Remonter à 10 ans, mhm. ay détournements 200 millions, 200 mhm. millions, millions, jël xaalis bi daw ak yi kenn xamul sans compter d'autres pratiques yoo xam ne les mhm. gens sont en train de régler ça et ça c'est une autre piste de solution. Il faut pas oublier que Poste c'est un groupe. Au sein du groupe, il y a des entités donc Poste Finance qui est l'entité la plus liquide parce que ñoom ñooy jëflante affaire xaalis euh, ay chèque pour ay yéen te loolu dafa amoon mauvaise gestion bu ci nekk que groupe la da ngay gis groupe bi wala yeneen entité yi ñu jël xaalis poste finance di ko def foofu donc une des propositions boo xam ne aussi c'est une proposition relativement pertinente et qui est appuyée par les partenaires du Sénégal mhm. mooy faire de poste finance mhm. une banque postale mhm. bu boobaa day am ñaari conséquence benn bi déjà moom mooy gestion bi tutelle bi ak encadrement gestion bi ça ne relèvera plus de l'ARTP et cetera mais de la BCEAO et de la commission bancaire mm-hmm. et foofu c'est extrêmement rigoureux c'est sérieux en termes de capitaux propres en termes de de de de fonds propres de capital en termes de ratio mm-hmm. euh, de de normes prudentielles yooyu il faut ñu dem vers solution la là. Mhm. Euh, vraiment bu laajee nag in parce que loolu ce sera le dernier volet moom mooy mhm. volet social bi bu ñu demee ba régler yooyu yëpp dinañ xam lan la ñu soxla ci ay nit bu boobaa syndicalistes yi fu mu nekk nii ils commence à s'attendre au pire et à, à changer de discours le mhm. discours maintenant c'est avant de s'attaquer au nombre de personnes, aux effectifs, nañu régler les problème fondamentaux de structure, structure de la dette, structure financière, d'organisation ñu doog a te bu ñu attaqué personnel bi mm-hmm. il faut que ñi ñu wax nañu bàyyi wala ñi ñu dàq wala ñi ñu wàññi mm-hmm. ñu respecter seen ay droits seen mm-hmm. àq ak seen yelleef en terme de voilà bu ñu dem le def na un signal wax na wax na lu am solo muy un signal fort mu ne euh, ni situation bi demee poste mënatul dem il faut une recapitalisation la création d'une nouvelle société loolu ci yan norme lañ ko mën a teg egg ci loolu nga xam ne mooy euh, l'horizon funèbre de la poste d'abord euh, président il faut qu'il arrête de constater des situations yoo xam ne tout le monde le sait les constats là ça suffit mm-hmm, franchement euh, il n'est pas euh, le président n'est pas élu pour venir constater en même temps que nous tous que lii pas possible qu'il faut yaka faucon un président ça ne marche pas avec des yaka faucon maintenant il ne fait pas que du Yaka Faucon il y a parce que loolu c'est son discours pour le public mhm. en vérité depuis 2016 je l'ai dit restructuration bi c'est en cours mhm. moom lu mu si mën a jouer moom mooy le rôle d'accélération et puis arrêter les frais parce que on ne peut pas dire que depuis 2016 ñu ngi def restructuration et qu'on continue à avoir des DG mhm. yu def ay recrutement yam neex di utiliser xaalis nu leen neexee ça veut la mauvaise gestion mhm. et ça c'est le rôle du président mhm. c'est pas de venir dire non ça ne peut pas continuer évidemment ça ne peut pas continuer tout lui on attend de lui qu'il prenne des mesures pour répondre à la question sur nouvelle société il y a des propositions qui ont été faites en 2020. Encore une fois, je vous renvoie au rapport d'activité du Trésor en 2020. Il y a eu des chiffres même qui ont été avancés. ñetti structure groupe la euh, groupe La Poste EMS ak Poste Finance pour groupe La Poste les, les, autorités du Trésor avaient, enfin les autorités du Trésor, du ministère de l'économie et des finances en général, puisqu'il y a des comités, des commissions, ils ont proposé une recapitalisation à hauteur de 127 milliards de francs CFA pour le groupe La Poste. 10 milliards pour Poste Finance, 2,6 milliards pour EMS. Ça, c'est des propositions concrètes. Mmh. Mais propositions prises isolément, ça ne sert à rien. Donc, c'est un ensemble qui est en train d'être mis en place. D'ailleurs, il ne faut pas arriver à la recapitalisation sans régler les problèmes de fond. Mmh. Comptabilité analytique, oui. mmh. visibilité sur la gestion les gestions pensent comment ça se fait qu'une société comme la Poste. Mhm. ñu toog bay am ay problème certification de compte. Mhm. c'est quand même extrêmement de compte en 2020 on n'a pas pu certifier les comptes. de 2017 2018. Mhm. c'est pas possible. Euh, ça veut problème. C'est un international qui a, qui a, qui a Ça veut quoi? Ça veut da ngay jëlaat di. Euh, defaraat di defaraat et malgré tout le travail et malgré le label du cabinet comptable international qui a fait le travail mhm. on n'a pas pu certifier donc vraiment c'est un mouvement d'ensemble mhm. bu nga xam ne affaire wàññi personnel bi moo war a nekk le dernier euh, acte mhm. avant ça il faut que nous remettre en place une organisation il faut nous restructurer les grands équilibres les grands équilibres financiers il faut ñu restructurer ko bu ñu demee ba boobu nag la ñu xam ne pour ñun lu ñu soxla li parce que poste c'est important mhm. je rappelle que c'est une mission boo xam ne ñoom rek ñoo ko mën a def mais ils ont des atouts ils ont des actifs très importants matériels et immatériels mhm. matériels et immatériels notamment seen réseau qui est le réseau le plus dense de ce pays. Ah ouais. Mmh. Orange amu ko. Mmh. Euh, encore moins les autres opérateurs de téléphonie. Mmh. amul benn banque bu ko am. amul benn administration bu ko am. poste foo dem lu mu tuuti tuuti am na benn bureau de poste. ah c'est pour ça qu'on utilise ce réseau pour qu'on utilisait pour payer les bourses familiales les retraites etc mmh. malheureusement ils ont perdu problème ouais. c'est c'est c'est c'est ces deux marchés qui étaient importants oh, on va vers le cash transfert mmh. et ça Il y a des gens qui ont fait des propositions. Euh, J'aime à citer, peut-être euh, qu'il ne sera pas content que je cite euh, son nom, euh, Maïs Le Khouma, par exemple, qui a dit depuis des années qu'il fallait que nous durions un, un, une licence MVNO wala une licence de télécommunication à à la euh, poste mhm. pour ñu mën a def tey jii li nga xam ne seen concurrents yi ñu ngi koy def ba jël ay marchés yu important si ñoom moom mooy le cash transfert mhm. euh, utiliser euh, les réseaux de téléphonie pour envoyer de l'argent s'adapte pas adaptation la presse nangu na marché bi nga xam ne moo doon fay les retraités pourquoi parce que retraités yi dañuy dem poste pour ñu fay leen seeni i ay retraite ñu naan leen xaalis amul dem leen ba suba dem leen ba gannaaw suba c'est pas normal donc la poste a cet atout là ils ont deux atouts benn bi moom mooy seen réseau dense ils sont partout y compris la valeur immobilière tout de tout ce réseau là mën nañ ko def levier pour quelque chose beneen bi moom mooy exclusivité bi ñu am hmm. pour certains services et produits postaux beneen bi moom mooy poste finance mm-hmm. bu ñu ko defee banque xëj na euh, du mën a rester dans le groupe mm-hmm. parce que banque aussi dafa am nu muy doxee mm-hmm. mais en tout cas il faut trouver une solution pour que loolu tam am levier beneen bi peut-être qu'il faudrait envisager les gens ont parlé de libéralisation un peu plus accrue mais il y a peut-être une dose de privatisation qu'il faut apporter. Le modèle existe. Ouais. En Allemagne, c'est DHL qui a racheté euh, la, la, la, Deutsche Post, mm -hmm. euh, en, en, partie en tout cas. Mm -hmm. Et que euh, synergie, vous me créez, c'est, ça a été bénéfique au groupe euh, DHL, ça a bénéfique à la poste qui a été sauvée. Donc il y a toutes ces possibilités à regarder, mais il faut commencer par le plus urgent. Il faut arrêter la saignée. Il faut arrêter la saignée avec la, la direction actuelle et faire rendre des comptes à ceux qui sont passés. Ah, nit ñi xam nañ ko xam nañ en termes de recrutement, en termes de, mauvaise gestion. parce que Habib Balde bi mu remplacé si Raja on s'attend parce que déggoon nañ fi coow loolu déjà déggoon ci problème bi moo est-ce que ci adaptation bi ñu bañu ne nan même poste affaire au déménagement sax war nañ cee mën a parce que am nañ quand même les moyens pour le faire. c'est la partie un peu stratégique je pense que nit ñi réfléchir nañ ci loolu surtout côté technologie bi bon générale et des instances de gouvernance mhm. plus l'appui de l'État puisque État bon c'est un service public euh, mën nañ xool loolu y a pas de problème mais c'est surtout la gouvernance mhm. tu as beau faire toutes ces réformes euh, toutes ces structurations restructurations mhm. tant que ñu ngi am une mauvaise gestion avec des recrutements clientélistes avec le népotisme avec les détournements l'impunité etc et tout ça avec la complicité de l'État parce que ah c'est à se demander si l'État n'est pas bénéficier quand je dis l'État ah, c'est peut-être le parti État wala le ah, euh, le régime en place mm-hmm. n'est pas bénéficiaire parfois mm-hmm. des des fruits de cette mauvaise gestion. Et dans d'autres contextes, les gens ont parlé de ben, recrutement de militants, mais aussi euh, i détourner Khalis, de co financer, de co des activités qui n'ont rien à voir avec bon, l'activité. Et puis en parlant de licence eh, MVMO, mais, mais lancé où Oui, c est, c est, le, le, problème, ça crée un retard technologique extrêmement grave. Moi, il y a quelqu'un qui a posé la question, cest mm-hmm. euh, justifie que jusqu'à présent on lenteur, oui. il y a des lenteurs euh, il y a mais évidemment il y a aussi des contraintes mhm. financières techniques xam nga tamit l'un des problèmes avec les recrutements yaa ma neex mën nga recruter dix mille personnes yóbbu leen poste. si tu n'as pas les compétences. ñu mën a dérouler le plan. c'est c'est c'est mm-hmm. et deuxièmement euh, au contraire dañu nekk euh, genre boulet. Mm-hmm. c'est-à-dire yow li nga bëggoon def li sax dañ koy tardel parce que da nga koy dénk ñoo xam ne. li ñu waroon def en quarante huit heures. Mm-hmm. ils ne pourront jamais le faire. et ça c'est agence poste nga dem fa moo tax kenn bëggut dem agence poste di def transfert wala transaction. ñuy surveille de très près ah. ils ne sont pas nos maîtres du ñu suñu ay euh, moomuñu ñu et cetera mais am na lu ñu digaale ak ñoom am na lu ñu déggoo ak ñoom xaatim ko signe ko mm-hmm. c'est l'instrument de coordination des politiques économiques c'est parmi les critères mm-hmm. parmi les objectifs mm-hmm. les les jalons yi nga xam ne posé nañ ko poste rôle bu important la ci am buñ ko restructuré wul c' est pas bon pour l' économie. cent quatre vingt milliards yoo xam ne. Mm. poste daf ko yoreel état et ça va se creuser parce que on va continuer à compenser à la BCEAO euh, si trésor public pour leur compte alors que li ñu leen di kii euh, franchement euh, seen coût d' exploitation yi c' est absolument insupportable. très bien merci beaucoup euh, Souleymane 8h39 jot na léegi léegi ñu dem ci euh, gëstu bi ñu leen parel mu jëm ci wàllum caada.